couloir daal li faatu waaye di wax daal na ko bind woo seede su ma ko waxee nga man nañ woo baara baara ñoo mën la baara kat déglu ma dégluwaat ma pour ñu déggoo dañ la wax dañ ko wax ni ko soxna fay may naa ko nii jaay Eva signé dañ uh-huh. ko ci sa bien dafa am lu mën a nekk ak lu mën a uh-huh. boo dee mayee dafa am yoon Ah. du dalaa neex nga jël immeuble lëm ma may ko Eva non non dafa am benn sa soxla nga bëgg ko lool nga xëy jël immeuble may ko c'est pas normal dafa am nu muy demee fuñ ko teg moo tax xale yi ñu takk takk ma de doofu ma jin ma ci ñëwaat mais jin ki nga xam ne moom moo alalam sañ naa maye lu ko neex waaw gëstu naa de te bëgguma fii toog di xam warul maye nu ko neexee dafa am benn pourcentage boo xam ne moom la sañ waaw dafa am na nu ñu ko tuddee sax dama ne loolu ay nit a ko bind mm-hmm. ay nit bind mhm. ko nga ko bind man maa liggéey sama alal TFM Youssou Ndour mhm. fay ma dem ca Talla Señaan nee na nee na balaa ngay xam say mbokk dëgg am papa bu wàññeeku wala sama jabar yi kama ca may jàmm ak salaam ak ndox mu sedd man la may naa la sama kër nangam dofuma jinne jàpp maman Eva nga bind ma bind ma si ñu est-ce que xam nga ne am na waajur bu am lu dul jeex waxal jaaj te bu dee du fi bàyyi lu ñuy miraas waaw ndax waajur dina nekk ci këram am lu dul jeex dëgg la jaay ay soxnaam sonal ko hmm. ay doomam sonal ko hmm. balaa moo dee day jaay lépp may ko ñu ko neex am na ñuy def loolu jaay lépp wala nga may ñi la neex parce que tamit nag wax fa dëgg fa neex yàlla mënoo nekk magam jëmm nga liggéey sa alal moom ko yaa xam góor nga yaa xam jigéen nga nga feebar ñu war laa toppatoo toppatoowuñu la ñu war waa dimbali dimbaliwuñu la war laa sang sanguñu la te bu heure bu ñu xëyee dina ñaanal dee wala ñu la yéene dee bu ñëpp tëddee ñu la yéene dee di la moolu waaw kon kooku bu xolam jeexee mën naa def loo xam ne war koo def hypothéqué këram mhm. paa yi ci bari hypothéqué nañ seen kër yi mhm. yor ko nii di ko dundee bilaay borom barke bu wopp ñaare bu ngeen mhm. seetloo bu ko yàlla boolewul ak ku mat soxna xam nga soxna ak soxla bokkul. bokkul de mukk ci bu ko yàlla boolewul ak ku mat soxna toppatoo ba day manqué lool. moo tax uh-huh. mami. Uh-huh. Diop Linguère. Oh, jabar ju baax baax na. yii loo ko jëndee jabar baax moom Laurent Gbagbo Laurent keroog bañ ko jàppee. moom uh-huh. tonton père Gbagbo. père Gbagbo. tu parles de père Marie de Thérèse <laughs> keroog bañ ko jàppee. ba teg ko Laurent daf ne. mu nga digal bépp góor kuy takk demal nga wuti jabar ju baax allahu akbar mhm. hmm. Eva naam euh, ko ci barma ba muy yooteeg doom ja ngir doom ja bëgg a takk doom dane ko jabar lu mu ko wax doom ja ne hmm. bañ dellu si waatee mu ne ko jabar doom ja ne tekk ca déwén sa mu ne ko waat jabar mu ne ko goro ba ca fay li ba gis nga dama yee waay sàmba xaaral fii garaaw la damay bëgg goro ba ca fay ba waaw booy takk takkal ku baax. dëgg la mhm. gis nga. waaye na baax ay waajur. dëgg mhm. la ngir bu ëllëgee lu la ca fekk. ak a noppal mën a taxaw li jënd kii may nuyu nii yàgg naa ko nuyu ci émission bii. waaw mhm. di soxna Ndeye Fall mami Demago di nga dikkaat soxna Ndeye sama jabaru maam la woon bu ñuy wax Malick baan Malick baan moo nekkoon directeur financier wu Sotrac. vers les années quatre-vingt. kooku sama maam la ñu ngi dëkk Padois gii. waaw sama maam jooju feebar na plus de quinze ans wala vingt ans. te mosoo ko fekk. waaye bis boo ci kër gi soo duggee ci kër gi maam maam bu su ma demee seeti su ma ko fekkee mu toog na ma meloon ca jamonoy katana. Eh noonu ko koy fekkee mu toog. Eh il est beau rafet. Eh, mën a solo set wicc te paa bi doo gis ci moom benn feebar nga xam ne soxnaam sii di Ndeye Fall man na sama jabaru maam la waaye man man man man nopp naa ko man <laughs> wax dëgg yàlla nit ku baax koo xam mais mën naa la ko fa sama dama koy téeméer maag ngi ñëw indi guro nit ku baax a baax a gu mel noonu musuma koo gis te góor buy wër jabar ju mel noonu ngay wër ah dëgg la jabar ju mel noonu tey ji miraas ba da nga naan bala ngaa dee may ko lépp dama ne ton jigéen mooy àdduna jigéen mooy kër mm-hmm. ndax dama wax ne fii gis nga chaque jour moo tax ma leen di sànni xeer comme d'habitude mm-hmm. dama ne gis nga lu fi baax rek ba ñëpp di ko wax ñoom la mm-hmm. waane lu fi yéesit ñoom la ñoom jigéen ñi parce que ñun doy nañu waar am nañu fit dëgg la te it mën a def lu bon waane xam nañu koy defee dëgg la sànq nga ko fi waaw moo am sax gis nga moo am tey jii balaa ngay xam ne jigéen ñi ñoo doy waar tey jii demal ci sëriñ sànq tonton Ndoye Bane na ko nee na jigéen ñëpp rey nañu seen jëkkër te pourtant yëguñu ne sax ñu ngi rey i jëkkër eh Allah boo demee ci ñoo fay feeste ñi ngay wax ñoo nekk ci tiktok bi di seetalaate seetaluñu benn góor ay jigéen rek la ñuy seetal waaw jigéen ñi rek jigéen moo mën a takk or kaw ba suuf. Ah. suba nga laaj ko ko mën ne la jaay naa ko boo ko waxee du ñu def lu am valeur de sëriñ la ko jox. Eh. non c'est sérieux loolu la ñuy def. jigéen ñi lu ne jaral na sànq wax naa la am na ñoo xam ne xoolal cent ans kenn du leen miraas. gone ga de nee ñu c'est pas les marabouts c'est Dieu. waa waa c'est Dieu waa c'est am na yoo xam ne. c'est Dieu ñooy jàpp ci yàlla. non mais borom bi subhaanahu wa taala moo ñu bind sàkk ñu. Mhm. tayit xam na li ñuy def. waane gis nga nag mu ñu bindee ñun jaam yi ñu war fee nekk di def lu baax di def lu bon hmm. kon am na ñoo xam ne bu ñuy def il faut que ñu toog seetaan dooleel leen mais xam li ci neex mooy am kaw day toj day toj waane bu tojee da ngay am kaw hmm. daa wóoru am kaw am kaw xool dafa foor nag non maa ngi ñëw maa ngi ñëw mais woyofal moo bi li nga ne am kaw man maa koy xam <laughs> kaw wàññi ko waa d'accord leket lan la xam nga xar nga foofa waa am kaw mhm. ah aw oh, waaw ah, waaw waaw waaw waaw soo nee am waaw soo nee am aw nit ñi ni dañu xam. waaw mais xam nga man bu ma nee am olof boobu dafa kawe. man bu ma nee am aw. waaw ñi dégg olof tamit dégg ah, kon moom ndekete olof da koy mën na ko salfaañe. waaw mais xam nga dafa kawe waaw d'accord léegi leeral nga leen ko léegi am aw. nee neel am aw gàllaaj gi nga aw. waaw takk ko ci kër gi ngir ne miraas mi tëj seen làmmiñ waaw laar boobu nga dem wuti ah. làmmiñu bëy boobu nga gas suul ko ci biir kër gi jam ci puso mhm. làmmiñu day day tax day tax la dañuy tax sa làmmiñ am na ci boo xamante ni dañ ko yóbbu ci armeel suul ko ci bàmmeelu xale ba tey ci bëy parce que bëy dafa bare wax wi ci bàmmeelu xale lañ koy suul xale boo xam ne mus sa wax mooy liir yi ñuy wax moor ne allahu akbar da koy jaral yooyu yëpp jaru ko fi mhm. ndax xam nga lu tax mhm. li Eva Eh, li bascum way mhm. du marabu yàlla la mhm. te gis nga alal dafa sax ci xolu boroom comme dem na ba ko fi mhm. mais waxtaan wi mënuñu ko waxtaanee ba mu jeex te waxuñu ne ku iñaane sa dono sa deewin ñaaw dëgg la ba mu jaral leen ngeen di xiiroo ko ŋaayoo bay dundal séquestre boo xamante ne seen bàyyi juru ko yoonam nekkul ca miraas ma ah, séquestre yaa ngi dund ci alali